asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalib yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara euh, seen mbokk Gana Messere Maxtaar audio bii nag li tax ma di ko def dama génn sax nekk bitim réew waaye kon may toog ci jataay bi may toog mooy wax jii ma wax dafa mel ni dañ koo bëgg a jël yóbbu ko ci foo xam ne yóbbuwuma ko mooy yóbbu ko ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba te doon ko liggéeyal bëgg a jël wax ji yóbbu ko ca ngir jublu ne na daf leen di sobantal wala daf leen di doyalal te loolu la ma ca waxoon laa ci waxaat mosuma koo def te duma ko def te fas yéene koo def ndax man mosuma wax sëriñ Touba te tudduma leen mënoo waxtaane Serigne tubaay te boole woo leen ci tey ñoom kenn ku ci nekk kër gu ne boo fa duggee xam ne wëllëre woowu laa séq ak moom kon nag wax jii de kenn du ko yëkkati bëgg koo yóbbu tasaare ko ci adduna bi jublu ne gànnaa ngay xas mag ñaandoon ak Serigne Touba wala ma ngi leen di ŋàññe bëgg caa ubbi bunt loola du ca mbooleem seeti seex yi ak seex yi maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di balwaaq te xam ne kenn ku ci nekk diwee sa maam na waaye ku ma leen gën a bëgg ñoom mag ñi amul te xamal ngeen ko seen bopp xamal ngeen seen pas-pas ak sama yitte ci ñoom it kon bu saytaane bëggee jaar ci lii kama jàmmaarool di wax ñu bëgg faa jéggi loola te li ma naqari ba may taxaw kenn ku ci nekk ci yéen boo ko yegoon xam ko mu naqari la kon man la ma doon xeex laay xeexaat mooy wax ji benn mag menn magum Serigne Touba mu àndoon ak Serigne Touba di ko liggéeyal sa njaboot ne ci yoon wi di liggéey moo moo wax ci jëmul ci yow maa ngi leen di jéggalu nag mboolem ku ko dégg te doon sëtub mag mu naqari soxol nga jàpp ne dama laa offensé wala wax ji dama koo jëme ci yow maa ngi lay balu ak maa ngi lay jéggalu ngir jëmmi Serigne Touba waaye ngir jëmmi sa maam jooju nga xam ne tax na soxol yëkkatiku maa ngi lay jéggalu di la balu ak seen bokk Gana Messere wasalaamaaleykum wa